asalaamaaleykum monsieur le président assemblée nationale monsieur le ministre de l'environnement maa ngi leen nuyu di nuyu sa nattangoo ministre de budget de finance ak ministre de travail di nuyu sa collaborateur yi ngi àndal yëpp nekk seen ginnaaw da nuyu sama nattangoo député yi di la féliciter encore ci nomination bi la njiitu réew mi nommé ngir dénk la ministère bu am solo bi parce que ku ne xam na ni am réew mënul avancer te amoo environnement environnement nag dafa bari ay pàcc pàccaan di la sant aussi sa taxawaay parce que ku ne xam na ne heure bi daaw COP 27 bi Sénégal dafa participer participation bu am solo ndax depuis ba nu amee indépendance ba fi may wax a yow COP 27 c'est la première fois Sénégal am benn standing ci yow la amee kooku ñun ñi nga xamante demoon ko 27 xam nañu ko kooku ndamul Sénégal la ndamul diplomate la aussi parce que ñun ay républicain la bu ngeen defee lu baax dana leen ko wax bu ngeen defee lu safaan ba dana taxam leen lii ngeen def mën naa gën a baax noonu lañu yàlla bindee ñun ay doomu daara la te Touba da nga fa déggee woon lu am solo depuis ñu tàmbali si yor ministère ba léegi. ñu jëm si ay remboursement yoo xamante ni autoroute bi la diggante Touba ak ak ki nga xamante ni moo nekkoon ko côté ngaabu bi yooyu yëpp ba léegi nii yooyu am na si ay jafe-jafe parce que man ngeen def mais toppatoo mooy des monsieur le ministre il faut mu am suivi boobu nag malheureusement dafay xaw a am ay jafe parce que nag doo xam lan moo tax monsieur le ministre le procès président Ablaye Wade le grand miraille war bi nga xamante ni c'est un projet pharaon kooku bëgg na aussi tamit ngeen dolli ay moyens pour ñu mën a àggale loolu di féliciter di remercier ki nga xamante ni mooy euh, les monsieur Seydi bi nga xam moom moo faram moom moo fa jógee directeur Eaux et ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni jot na ko def foofu mu nekk di ko ñaanal ñu ngi ko dénk yàlla may ko ndam euh, di wax rek kontaan bi ma am parce man bu ma sañoon Sénégal gépp rue yi fi nekk nekk ay Touba yëpp dañ leen dindi jox leen Sénégalais yi nga xamante ne moom nga def fii rafetlu nan ko bu baax a baax a baax parce que fedar bu jëf ji mu fi jëfoon ci Sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk maam yi ñenn ñi nga xamante ni ñoom dañ leen a toroxal ñooñu buñ sañoon turu fedar bu du fi du fi du fi du fi nekkati parce que jëf ñu ñaaw ji mu fi jëf kon tey boo jëlee tur bi nga duppee ko njiitu réew mi président de la république kooku ñun kontaan lañ si am parce que Macky Sall c'est un sénégalais le président de tous les sénégalais te li mu fi def ñëpp xam na ni def na fi dara kon bu fekkente ni tey duppee nga ko loolu lu baax la na yokkute yaatu ëllëg man bu ma ñëwee tudde ko leneen parce que président Ablaye Wade Macky Sall moo ko tudde stade bi loolu jàpp naa ni état ci continuité la. Abdou Diouf te tudd na Senghor stade te jamono yooyu waxuñ woon ni Senghor ak Abdou Diouf lu fi yàqu ñoo ko yàq te moo tax def nañ ko kon jàpp naa ne loolu mooy li nga xamante ni pour man na ngeen si nekk continuer si jël leen rue yi nga xamante ay tubaab ñoo ko moomal ngeen duppee ko nit ñu baax ñi rue Alaaji Omar Foutiyu Taal rue Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ba ci rue Cheikh Abdou Bara Dolly parce que man war naa am rue te fii parce que jaaru na li fa sama maam def sama baay def ko kon il faut ngeen tuddi mairie kon loolu euh, man euh, dinaa la ko wax di waaj nag li nga xam mooy COP 28 monsieur le président yaakaar naa tey yaay président Rousseau bi COP 28 bi nga xam fa lañ war dem muy Dubaï ministre de finance jot nga leetar na nga jàppale présidente Rokhaya Diouf pour que COP 28 bi Assemblée nationale man fa dem teew fa teewaay bu mat sëkk comme ni mu ko defee COP 27. parce que bañ ko ko ba Sénégal bi ci 7000 da ngeen am budget vert ñëpp du ko rafetlu. kon fexe leen nag ba nga xamante ñun fu ñu toog jëmmal fa Sénégal rawatina parlement yi kooku na si dugal sa loxo jàpp si comme ni ministre bi jàppee kon jàpp naa loolu bu ñu ko defee ndamul Sénégal lay doon ndamul Afrique lay doon ndamu Assam doon parce que ñun fu ñu nekk Sénégal lañ fa nekkal man maay le meilleur candidat candidat doomu daara nekkal fi askan wi programme 155 ku bëgg ku baax bëgg ku jub ku mos a lekk xaalisu réew maa ngi nii sama remercié jërë ngeen jëf. Eh, mon très cher collègue